It's all about body things. It's another two. Right, I'm Blast them to devil. Look at you go like this. You get excited. l'Octave, tel que tel il y a un chef, président Charlie, face à John Akhayalet, un vilain Bilali, يوح ملاك لالا يداف أمور فالت أمور بلاس ورية تلتي أمور لكي وقت بريتي أسامبلي قال الواي لكي تبي أفر إنسلام وقت نابي ديكو صلاة تبي لكن جوتو جاين غرم سليمان زلجوك مو منوري حمزة السلوي مو منوري رجل ما قرجي داوي Yeah, asalaamaaleykum taala barkatu ñi ngi nuy ñep di leen ziar di leen sant di leen magal di leen damo di leen titro ñeu di leen jox audio après ñu débattre ci quoi ñi tambalé mo audio bi audio Adji sar Ousmane Sonko eh, Adji sar eh, MC Niass Adji sar sosal Ousmane Sonko audio troisième xam nga. moom ñu koy tuddee aji géej mooy l'histoire aji saar ma leen doon raconté bi nga xam ni mars bi passé donc ñu ñëw déglu audio bi comme gars yi ñoom dañoo bëgg audio audio ojo ojo moolaa audio yi moolaa audio yi moolaa audio yi mais audio yaa ngi génnaa ah. te audio yi nee naa leen vingt sept audio la donc ñuy génnawaat euh, troisième bi ah. troisième aci xar ma may ko gaay ñu dégluwaat ca ay aji saar aji saar aji saar aji saare aji sar aji saar jombal nga ñaari yoon tooñ ko Sonko benn yoon ñu ne duñ la baal nga ko ñu ne duñ la baal nga ñu ne duñ la baal aji saar aji saar aji saare eh, saaro eh, aji saar moo jombal jaami de eh, xaaral ay ci bisimilah. leen gis ngeen fu nekk nii ça c'est fii da ngeen di mën carte sur table mënoon. loo def ma appuyer loo def ma appuyer si. jeex na. bon gars yi gars yi balaa ngeen di fàtte. audio yi suite logique la xam nga am na fu Adji Sarr waxoon carte sur table Adji Sarr nag ku bëgg français la non <laughs> c'est normal nag sa normal sa normal Adji Sarr ku bëgg français la xam nga. Euh, c'est normal daal c'est normal waaw ñun ñun kaw-kaw yi dañoo yàgg bëgg français ñu <laughs> yàgg bëgg français <laughs> euh, aliénation culturelle bi moo doy waar te Sénégal pour ñu ne kii nandite la il faut ngay làkk français pour ñu ne kii il faut ngay làkk français pour ñu borom xam-xam la il faut ngay làkk français parce que Sénégal ñoom langue bi mooy borom xam-xam maanaam langue française bi kon naal maanaam France français yëpp am xam-xam parce que ñoom Sénégal il faut ngay làkk français pour ñu ne kii ku am xam-xam la même boo xamul dara sax day day làkk français booy làkk français rek ku am xam-xam la donc moo tax suñu gel yi bëgg ay wesh wesh chub ñu ne non tubaab la tubaab la am problème mu nasaraan loolu yëpp ci aliénation culturelle bi la donc ñu dégluwaat tey ngeen dee déglu leen déglu leen suite logique bi ak français wu Adji Sarr ay ci ñu dem. gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fi da ngeen di mën carte sur table. mënoon bi lo def ma appuyer lo def ma appuyer si. jeex na. lo wax ma appuyer la fo def nak nak ma wo téléphone ma ma wax. parce que j'en ai ma claque. jeex na léegi xam nga nu may def. Mm-hmm. man may dem na len hé dama bëgg léegi ngeen tek sur table ngeen lett wala ngeen firi soo ki mënu ci dara ñun ñoy kilifam so len ko mënul. man ma def conférence de presse. ci waaw ci muy neex muy naqari. force loo léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne conséquence conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg yow nga wax moo tax ñu lay koy kon. su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement amul benn problème yow yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko man le problème mooy je Sénégal foog ma génn fii ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. dem fan ñëwaat fan ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. danaa la ko wax. Eh, ko wax. li ñuy jox ñeneen ñi. ci ay milliards Fatou de ay ñaan yow Fatou de xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay tante puis on pas quoi li leen jox yow. pourquoi yow tante sama kanam la. sama kanam la. yow sama yow mi nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mu mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax ay yow kenn gënu la cee dëgg wala déet hmm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah ah loolu loolu loolu loolu da da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa oo paa bi su ma jullee ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok ok Adji Sarr. waaw ok Adji Sarr. paa bi paa bi paa bi mu wax nag mooy paa bi Rasta xam ngeen paa bi Rasta mooy paa bi Rama Sarr mooy papa Adji Sarr. waaw donc. paa rasta mooy papa aji saar paa rasta donc voilà mun nañ koo kiyaat ko mun nañ koo mun nañ ko dégluwaat sama internet bi la la laa dindi woon quoi parce que man dama yaakaar sénégalais dañoo dafa am ham, xam dañoo yaakaar ni ñoom man aw man aw ma dund quoi ngeen baal ma quoi <laughs> da ngay tëdd diggante bi ngay tëdd bi ngay Euh, euh, cent mille personnes bugg laa woo quoi cent mille personnes sénégalais bugg la woo quoi même yow mbete yow sa baay daa dee sa yaay dee say frère dee say sœur dee yow amoo dara daal da toog rek ñëw di leen déglu rek bu kii waxee trente minutes kay wax quarante kay wax soixante mu am benn mille personnes yoo xam ni au même moment ñëpp ku nekk di ma woo bugg bugguma jël la man yoruma dossier Sénégal du ma seen ministre du seen député du ma seen maire représenté wu ma dara dara dara loolu mu mus teg benn poste damaa ñëw di xeex comme yéen mu sama nopp yii munu ma ko jël ne ko yàmbalang di jël sama téléphone di wuyu cent pour cent bu fact bu facture euh, euh, courant ñëwee du ma xam nu ma koy fayee buñ ma laaj te boobaa bu ma ñëwoon ci yéen tam doo leen ma jox lu may fayee sama facture ko munu aw ma jotu yor sama nopp yi ne ko yàmbalang jël ko di déglu addunay sénégalais loolu wax naa leen ko li ma nag yéen xam lan lañ séq live yii ñu pare xoolal gars yi dox leen ma dox man am naa yeneen chat à fouetter am naa yeneen i soxla sama jot dama koy def ci ci sama sama business dama koy def ci sama lijjanti maa dama koy def ci sama live aw ma jotu toog mel ni secrétaire kenn fayuma en tant que secrétaire bëgg a répondre à dix mille appels wax naa leen ko encore une fois man duma leen amul man ne suñu diggante amul rusante amul nëbbante ngir yàlla lillahi wa rasuli aw ma jotu di décrocher aw ma jotu di wax appel saa yooyu wootee jàppal ne am na dix mille personnes yu may jéem a woo mais saa yi comment tu peux répondre à tous ces gens la comment tu peux répondre à tous ces xoolal regarde à la seconde la ñuy wootee mais comment tu peux répondre à tout ça mais lii Macky Sall sax da ko am lii lii non man mayuma leen sama adduna de dama ne am na temps bu may utiliser pour yéen loolu rek laa leen may may mais mayuma leen sama adduna may ma ngeen jël sama nopp yi bu ko biiral ci ay wax bu ko biiral ci problème bu ko biiral ci xolal je peux pas wala du jeex ah des centaines de milliers de personnes man du ma secrétaire du ma secrétaire tey du ma secrétaire ëllëg yoruma seeni problème du ma député du ma député jël leen yi ngeen sànni ko yi mari saaña du ma député du ministre du ma maire du ma député ministre du ma maire sama nopp yi ubbiwuma ko di bugg leen di di déglu matin di soir lool dama leen ko ñaan ngir yàlla rek ngir yàlla du ma jëli appel du may wax ak man dama am dund dama am dundu damay dund damay dund dama am ay parents ami rakk ami mag am ay copain am benn gang am ku ñu wax awma jot di décrocher dix mille personnes ñu dégloo affaire Aïssa wax naa leen ko nag ku ci mer yaa xam ma awma jot boobu jot boobu moom aw ma ko moom bu ma bu ma leen wuyoo weer bu dee du ma fay sama gaz weer bu dee du ma fay sama courant weer bu dee du ma fay sama euh, euh, lu mu sama électricité weer bu dee du ma liggéey waaw du ma changé numéro nag mais du ma wuy kenn kenn kenn du ma wuy kenn aw jot boobu ayca ñu dégluwaat Adji Sarr na da ngeen ne mën carte sur table mënoo la. loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. jeex na. loo wax ma appuyé la foo dem nag nag ma woo téléphone ma ma wax. parce jeex na léegi xam nga nu may def. Hmm. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul. man ma def conférence de. ci muy léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñ ñu delloo suñu doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne les conséquences les conséquences. léegi dañuy wax ne duñ bëgg. nga dem parce que tubaab la. ay eh, conséquences yi conséquences <laughs> man damaa jombi ci réew jombule leen. les conséquences les conséquences mel ni kuy day mais yéen yéen aji sa aji saar bi génn ko ci réew mi jot na de aji saar Amérique moom doo fi dugg moom nañ la yóbbu France parce que déggoo anglais ni ngi làkkee français moom français yi duñ ko làkkee ni même Molière déggeewul ni français aji saar ya dégg français no nu ngi koy waxee ak voix bi ak tonalité bi non non aji doo nit i conséquences yi conséquences <laughs> tey les conséquences tey dramatique. ne leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da ngeen di mën carte sur table mënoo la. loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. jeex na. loo wax ma appuyé la foo dem nag nag ma woo téléphone ma wax. jeex na léegi nga nu may def. Mm. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi sol kii. mënuñ ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de. muy neex muy naqari. waaw léegi nag mën na leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñ ñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne les conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg yow nga wax. moo tax ñu lay koy kon su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement amul benn problème ah, yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ah, ñëw ne leen par force damay dem seeti ko man. le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mën ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. dem fan ñëwaat fan lay dem ñëwaat. non mais attends. non mais je parle pas anglais je parle pas anglais non France la euh, France la je parle pas anglais MC MC MC non attends attends MC euh, je parle pas anglais. Euh, moi je parle que français donc mon Amérique Amérique s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît vas-y vas-y tu dis quoi. après rek ngay dem. Hmm? dama wax ndax man. mais mais MC je suis pas allé en Amérique. oui parce que man Amérique laay xam ko. ah ñëpp ko xam. danaa la ko wax. aji carte sur table si ñoom. na carte sur table a dem ay waay waa Amérique am ngeen gan waay <laughs> jóg leen waajal ko fan ngay wàcc aji. Hmm? John Fitzgerald Kennedy xaaral ñu woo ñoom grand euh, Ousmane nag ñoom grand ñoom père Ousmane Dramé gaa yëpp dem aéroport jëli ji la. Amérique nga nar a dem waa aji mënoon ngaa ñëw fii nag <laughs> mënoon ngaa ñëw Canada ma la Amérique nga nar dem nii ay waay Amérique ñëw dina ab càgg càgg international Amérique la nar ñëw ay waay <laughs> c'est conséquence c'est conséquence mais merde OMC ji waay aji waay dama Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko ah bon xam nañ Amérique nga def. danaa la ko wax. tey au moins les cartes jetables si ñoom. yenn danaa la ko wax li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatam Dodo ay ñaan yow Fatam Dodo xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay oh, Tampis je sais pas quoi waaw li vou jox yow. Tampis sama kanam la. oh mais Tampis je sais pas quoi Tampis sa kanam la. mais kan mooy Tampis sax foofu. non mais Tampis je sais pas quoi Tampis c'est devant moi. Père Ousmane Dramé Adji Sarr a ngi recevoir ko John Fitzgerald Kennedy père. waajal ko mi ngi ñëw nee na yéen vous êtes au courant que moom Amérique lay ñëw man yëguma ko woon mais père lii waxu leen ko woon Sénégalais yi ndekete Adja ngi leen di woo naan mi ngi ñëw Amérique ngeen nëbbuñu ko ndekete nee na yéen yëg ngeen ko parce que yéen les les Sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi nekk Amérique père yow ngay seen parent ngay paa bi ngay kilifa gi aji Sarr woo la yow père Ousmane wax la ne mi ngi ñëw nga nëbb ko Sénégalais yi ba mu ñëw wax sénégalais yépp né mom mi ngi ñëw Amérique né Amérique la ñëw père loolu mom dinañ après sénégalais yi dinañ ko régler yéen yeen ak ñom euh, grand Ousmane Tunkara nan ngeen def ba aji sar wo len wax len ni mi ngi ñëw Amérique ngeen nëbb ko sénégalais yi loolu bëgg nañ ko lijeenté ak inshallah mais pour l'instant nañ déglu bu ba encore euh, père Ousmane Dramé déglul dakar aji sar wo na la wo na Ousmane wax nañ yeen war na ñëw Amérique ngeen nëbbuñu ko. loolu moom métti nañu parce que neena na yëg nañ ko ñu déglu français aji saari encore une fois euh, ay français yu saf la ay français yoo xam ni vraiment kii surtout Molière la macha allah. loolu def ma appuyer loolu def ma appuyer si. jeex na. loo wax la léegi xam nga nu may def. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi. ngeen teg si stable ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam. Hmm. soo leen ko mënul man ma def conférence. de muy neex muy naqari. léegi nag mën na leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañu ne comme yow. xam nañ ne bu léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bugg yow nga wax moo tax ñu lay koy kon su ma fekkee ci taabal ci wax leen loolu dina am changement. dina am changement. fais ce que tu veux fais ce que tu veux quand dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. mooy je ma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mun loolu du problème te sooy dem. sooy dem. Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui xam nañ ko. Père xam na ko. Ousmane na ko ñoom ñëpp xam nañ ko. li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatamba de ay ñaan yow Fatamba xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay tamsi je sais pas quoi. yow kanam la. man tamsi kanam la. sama kanam la. yow sama yow nga xam dañ la dañ la jël loo xam ne wóor na leen wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te laa jox ci milliards yi lu tax. ay yow kenn gënu la cee dëgg wala déet. on veut le procès on veut le procès on le procès je ne peux pas aller. Je, veux le procès. Je, le, veux le procès, MC. Je ne peux pas aller aux États-Unis. Je veux le procès. Je veux le Je veux le Il faut que ça soit clair, MC. Je ne peux pas aller en Amérique. Je ne parle pas anglais. Moi, je dis ça, je ne parle pas anglais. Je ne peux pas aller au, aux, États-Unis comme ça. Soit la France, soit Canada, Québec, ou bien je, je veux le projet. Je veux le projet. Je veux le projet, MC. MC Ignace, je veux le projet. Ouais, d'accord. Ok, ok. Ok, ça. D'accord. Voilà. un preuve la rac, yo, et dama koy teg pour jéem ko de pour pour jéem koo def incha allah loolu laa loolu laa jëm di jéem a traay ni xeex moom xeex lay doon rek jaajëf donc aji Sarr ak MC Niass gis ngeen audio bi le prochain euh, MC je peux pas je peux pas je peux pas j'ai les conséquences désastreuses je peux pas aller aux États-Unis mais là-bas y a il y a père Ousmane Dramé Ousmane tungara il y a beaucoup de paquets, je peux pas aller aux États-Unis. Je veux le prêcher. Non, non, finalement, j'ai décidé le prêcher. Je veux le prêcher, Inch'Allah. Je veux le prêcher. Donc, que ça soit clair, chers Sénégalais, qui dit wax ni man mi, du ma Adji Sarr kii di wax ni du Adji Sarr xoolee sama voix bi ni may waxee ak kii ni muy waxee man xam ngeen ni dit wallahi dañ ma bëgg a sosal ma bëgg a mais man musuma bëgg a États-Unis musuma bëgg a France je veux le prêcher je veux le prêcher je veux le prêcher je le dis et je le dis haut et avec toutes les conséquences qui peuvent m'arriver mais je veux le prêcher c'est pas ça, ça c'est pas déjà je ne suis pas déjà moi je le dis oui fort, moi ça je le suis certain, je suis la terre de ma mère, je suis la terre, le terre tête, je la terre de ma, nos parents, je suis la tête de ma mère, moi ça ouais, là j'ai pas demandé à aller aux États-Unis, à aller en France, je veux le projet, je veux le projet, je veux le projet, là ça je veux le projet. incha allah loolu laa loolu laa jëm di jéem a traay li ak su ma jullee ba pare suba prochain na leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da ngeen di mën carte sur table mënoo loo def ma appuyé loo def ma appuyé si je veux le prochain loo wax ma appuyé la je veux le prochain nag ma woo téléphone ma ma wax parce que j'en ai marre j'en ai marre je veux le prochain j'en ai marre man maay dem na leen xee dama bëgg léegi ngeen teg si stable ngeen lett wala ngeen firi soon kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de muy neex muy léegi nag mën a leen dina oote conférence de presse man ak papaam ak frère ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne kom yow les conséquences les conséquences. les conséquences parce que mais je vous l'ai dit je veux le prochain. je n'ai marre je veux le prochain. je veux le prochain. dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. mais le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. ah dem fan ñëwaat fan laay dem ñëwaat. sooy dem. Amérique ngay dem. dama wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. je vais le prochain. li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatambe de ay ñaan yu Fatambe xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay taxis je ne sais pas quoi waaw li leen jox yow. pourquoi yow kanam la. yaa ngi sama kanam la. Fouta Tampi. yow sama kanam. sama kanam la. yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax. dara du ci MC MC s'il te plaît. yoroo foofu menthe fraîche. menthe fraîche MC MC s'il te plaît est-ce que tu n'as pas de menthe fraîche là-bas. Mais sama kanam la MC sama kanam la vite tant pis quand on lui donnait des millions j'étais devant moi mante fraîche ok même toute mante fraîche MC on continue on continue MC vas-y vas-y Amérique lay dem sax Amérique lay dem ñëpp ñëpp xam nañ ko li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatam doy do ay ñaan yow Fatam doy xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ak ñi waaw li ñu leen di jox yow. pourquoi yow sama kanam la. yaa ngi sama kanam la. yow sama kanam yow nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax tey yow kenn gënu la cee dëgg wala déet. Ik doe ga rammelen. Mamoud dacht, doe me ga rammelen. Mamoud bijtaan, gaan me ga rammelen. Sidi Mohamed bijna, doe me ga rammelen. Maxal, door me gaan rammelen. waaw ak léegi di set ñi nga xam ni met yi ma tëddee yëpp ay gaan xaaxaam lañ waaw wacht, ko wax waaw dan niet, Dany doomi gaan la mais loolu ma ma ma man Aziza maa ko wax waaw doomu xaaxam la ñoom ñu Bougane Gueye Dany doomu xaaxam la euh, kii di euh, Macky Sall doomu xaaxam la Diawaram doomu xaaxam la euh, Mamour Diallo doomu xaaxam la même kii Mamour Baye Diam doomu xaaxam la Sidi Mouhamed Mbaye doomu xaaxam la Dior Diagne doomu xaaxam la gab yi mais je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi y a trop de noms y a trop de noms mais merde mais merde écoute écoutez-moi ah hein, sur le projet sur le projet. d'accord d'accord. Oké, oké. Oké, zo. Dank Voilà. Ja, zo dat was het. Ding in de maag. Is dat? man je je voulais aller aux États-Unis mais finalement je l'ai laissé on m'a violé on m'a violé je veux le prochain on m'a violé oui je veux le prochain je m'en fous je m'en fous je m'en fous je voulais aller aux États-Unis voir les l'Amérique visiter Harlem Queens visiter Queens mais finalement finir à, à, à, Dallas, euh, euh, euh, Salt Lake Mais je veux projet Mais merde, je veux le projet. MC, je veux le projet. MC, je veux le projet. mais le le le foo dem nag nag ma woo téléphone ma ma wax parce que j'en ai marre claque. jeex na léegi xam nga nu may def. claque j'en ai marre. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg si stable ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënut ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence. de presse ci muy neex muy naqari. waaw ci muy neex muy naqari. loo appliqué loo wax dama koy appliqué. léegi nag mën leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen. Fabi Rasta moom père Fabi Rasta. suñu doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañu bëgg dañu bëgg yow nga wax moo tax ñu lay kon su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement. dina am changement. maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa man dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. ma des Sénégal ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat lool du problème te sooy dem. sooy dem. Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non ma oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. de naa la ko wax. Eh, de naa ko li ñuy jox ñeneen ñi. ci ay milliards Fatam Dodo ay ñaan yu Fatam bi xaw ma ak ñeneen ñeneen yi ay tax si zone la sama kanam la sama kanam la yow xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loo xam ne wóor na leen wax ni yëpp ci dëgg ay fen la ba pare laa jox ci milliards yi lu tax. C'est des deux haram. C'est des doomi haram. C'est les domaines haram. ah ok ok ok MC mais c'est les voilà ay la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo def incha allah loolu laa loolu laa jëm a traay nii. voilà. ak su ma jullee ba pare xool. oui d'accord dégg ok ok ok Adji Sarr. d'accord. voilà ay preuve la rek yoo xam ne. mais avec tous les preuves aussi, tu as tous les preuves mais je m'en fous. dont droit des juges a dit que c'est pas important c'est pas intéressant. MC, MC, euh, c'est vrai, tu t'es fatigué, tu as, beaucoup de preuves. C'est moi, Elisa. Allô, allô, MC, tu m'entends Tu m'entends euh, Oui, tu as beaucoup de preuves, mais je m'en fous. Je suis parti au bureau du doigt et des juges. Je lui ai parlé et il m'a offert du jus. Il m'a servi du jus, du jus d'orange. J'en ai bu. Et après, il m'a dit, va, allez, Adi, tu peux partir. MC, avec tous ces yeux-là, <laughs> on va les mettre dans les poubelles. <laughs> Ou en bas, MC, MC, moi, Elisa qui te parle. Je, vais prendre quelques jus de fruits partout aux États-Unis. Mais avant tout, je veux le procès. Je veux le procès, je veux le procès, s'il te plaît. Je veux le procès, monsieur. Avec tous ces œufs là le temps et de jugement, j'ai servi de jus. Avec des, des tranchées de jus, des tranchées d'orange. J'en ai pris. Et après, il m'a dit que, euh, mais t'en fous pas. Euh, je m'en fous. C'est moi le toit et des jus. Je prends pas en compte les idiots. A dit, tu es la princesse adorée. Vas-y, prends quelques gorgées de jus d'orange et quelques tranchées. Je veux le projeter, je veux le projeter, s'il te plaît. Je parle plus aux États-Unis, je veux le projet. Oh, je veux le projeter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. <laughs> Chers Sénégalais, on va vers le projet public, le projet public, Inch'Allah. Et personne ne peut nous arrêter. On n'arrête pas la mer avec ses bras. On veut le procher, on veut le procher public. Adizar qui te le dit. C'est moi, Adizar. Je veux le projeter. C'est orange. C'est le doyen des juges qui me l'a donné. Et je vous le prochain. Merci. Oui, Mathieu, toi, Vas-y, sors. Dis-leur que cette douce, c'est pas moi qui parle. Non, Mati, tu es où, Mati Mati la mythomane. Mati le marasme. Mati marasme. Vas-y, vas-y, sors. Fais un live, fais un live. Le plus rapidement possible. Ça, dit ça, qui te parle. Allô, allô. Attends, je là. J'appelle s'appelle les menteurs de la République. Allô Oui, Mathis, ça va Oui, hein? ça a dit. Hein A dit ça. Hein? La fille de Fabi Rasta. La fille de Fabi Rasta. Fabi Ramassar. La fille de Fabi Rasta. Mais certains disent que mon père s'appelle Hassan Faye. Mais finalement, après sept ans euh, de vie, finalement, Fabi Rasta a assumé que c'est lui mon père. Fabre Rasta. Hein, dit. Hein? Hein? Mathieu trop points, oui, oui, oui. Non, non, rapidement, Mola Morgan a fait un live. Là, là, là, il a sorti mon audio là. Vas-y, vas-y, sors le plus rapidement possible. Euh, euh, sors, sors et fais un live. Ah, euh, comme tu m'as beaucoup, comme fan nga, mythomane nga, yo, yo, qui nga euh, xamné, y'a Mathieu Maras me sors le plus rapidement possible pour le contraire, Comme les Sénégalais, ils doivent lañ leen jappé, gennel nga né len ki du Adji ki du Même tu peux m'appeler direct, me dire ci live bi, vu ki du doit Sarr, ki du doit ki fa Adifa bi aji faa rasta rasta mais qui du aji ça ah ok tu veux que j'appelle qui un autre menteur un autre mythomane du cercle qui ah Bah oui oui oui je connais pas bah Diakhaté attends je j'appelle Bah Diakhaté ah lui aussi c'est un menteur c'est un mythomane ah ok ok je l'appelle merci merci donc euh, je reste à l'écoute ah Mati Mati Maram je le coup, après nga nga ma dégg nga ma dugg ci live bi ne len ki do je veux le procès je pars nulle part ok merci. j'appelle l'autre menteur du siècle l'autre menteur de la République le malade mental Bah Diakhaté Bah Diakhaté mën a day ñi dundé doul, ñi ñi dundé ay duul Allô, oui oui Saji, Saji. Mais c'est les conséquences, c'est les conséquences. Tu es où Oui, oui, c'est Mati qui m'a donné ton numéro. Hein Badjarate Hein Ah, tu connais mon père Tu connais mon père <laughs> Merci, Fabi Rasta. <laughs> mais Badjarate, nag yow da nga mën a duul nag de àdduna bi yéen da ngay duul loo wax lu euh, euh, Badjarate laa tudd te Ba sax Ba sax du tur Ba sax du tur kenn xamul sa tur. Je moom tur moom dégg da nga mais ma euh, est sorti na sama troisième audio et voilà j'ai appelé Mati Marasme mën donc ma moom numéro pour ma le plus rapidement possible ngeen dem au front ngeen défendre ma parce que mola génne na beneen audio aji numéro 3 te nag day bëgg sama carrière mi ngi naan foofu noonu ci audio bi kooku noonu di wax noonu nee na sax moom Amérique lay dem te ñëpp xam nañ ko te man Adji Sarr man bëgguma dem Amérique je vais le projet je vais waaw eh, oh, ajo waxal naa ko yàlla non non chef de presse yoo ko yow da a duul dawal duuli ji ay ay taw tawal tawal tawal les douleurs de la république du Sénégal ah tawal duuli waaw donc donc maa ngi dem duuli ji léegi man duul rek laa def ajo ba néew yi <laughs> man la bàyyi sama bàyyi daa duul ba dee sama yaay duul ba feebar man ak bu ma duulul ñu laaj ma ko <laughs> man bàyyi xel bàyyi xel duul rek laa def ok ko t'inquiète pas demal nga nala yi boo tëddee nalaw duul rek laa damaa duul ba néew yi damaa duul ba naaw dama duul ba sama bàyyi dee duul ba sama yaay faatu <laughs> <laughs> ci duul laay dundee ay duul laay dundee ak vertu aji dafa tëddi <laughs> on va le gérer maanaam Morgun da nga xam ñu ci moom ñun ñun dañuy def live di am dix milliards de vues <laughs> j'appelle qui encore euh, euh, là pour l'instant j'ai appelé Mati Marasme c'est ok j'ai appelé aussi hum, Badiakhase euh, deux douleurs de la République euh, est-ce que kan laa ci war te teg encore man nag temps yi gars yi dañ ma bàyyi de man aji damaa duulu duulu duul ba ñëpp daw duul naa duula duula duula duul ba Gabriel Kane daw ma duula duula duula duula duul ba ma Hélène Gaye daw ma duula duula duula duula duul ba Fouta Tampi daw ma duula duula duula duul ba Kalifour Show daw ay waay man man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay u u ay waay man yàqu naa waay man aji yàqu naa waay duul naa duula duul ba samay nit daw duula duula duul ba waa konaas daw duula duula duul ba waa konaas daw ñaari duul kat daal laa dese baa jaxase ak manti marasme ñooñu dañoo duula duul ba diwoo ko nañ déglu une dernière fois audio Adji Sarr yi man Adji Sarr wax ak yéen nañ déglu une dernière fois audio Adji Sarr yi duul naa duula duula duula nëbbatuma déggatuma kon ñu déglu une dernière fois oju Adji Sarr du ma Adji Sarr kii du man je veux projet je veux projet international duul laa duula duula duul eh, ay wax nga ay ah kii ay eh, pardon pardon pardon Mati Maras may woote oui Mati hmm? ama ah, woo Matar le Doulard Matar le Silibaar Silibaar bi aar bépp njagamaar ah Matar la Silibaar waaw ku mën a duul la de lu duulaar dafa ay ci duul aaru duul la jàng aaram yëpp ci duul la ok xaaral ma woo sama sama nijaay sama tonton mais mais mais mais Mati mais Mati Matar la duulaar dafa yàgg Amérique de ba dafa bipolaire bopp bi dafa tëb de 40 ans la def ci camion yi mënul génn foofu demul dikkul ay naloom dayut oh, moom xam nga dafa bipolaire mën naa ko wax dara mu jaxase ko dafa mën a duul mais day jaxase ay duul.

lépp lu ma am jël complot bi ñëpp a daw bàyyi ma waaw Fouta Tampi bàyyi na ma ci Hélène Gueye bàyyi na ma ci duulaar yi duul yi ma nekkee ñoom ñëpp daw hmm. Californie Fourchon daw na hmm. xaaral moom ma allo ma la matalo duulaar ma ma doon duulaar ma la waaw ma laaji Mwela? No men, wè, wè, wè, wè! arrête bul wax dama ah moo xam moo laa bay moo xam man moom moo laa bay bay moo laa man maa ko ngeen te booy booy xoolal laa xam booy booy gis nga laa xam laa xam dafa ne man ko woon soow man mataar man mataar gis nga bu muy juddu man maa xoolal man man booy yaay booy dafa judd rek man maa jël ko man maa daw ak moom mataar booy moo laa booy moo laa booy booy moo laa du foog booy booy moo laa du foog booy yow man la aji de non non non xam lu la way way wa dama ne man man man mataar maay waxal man mataar la dollar maay wax man ne moo laa du foog booy mataar booy booy booy moo laa booy bu ko yaayam juree booy man maa ko këf yóbbu ko hôpital booy xoolal ñu dagg nombre bi sax nii rek sama kanam lañ ko daggee këppit booy ma këf koo daw ak moom may booy booy man man yow man man ma daal du waay waay sa waay booy booy am na jamono joo xam ni man dama doon rab di naaw di mbëkk asamaan di wàcc di xot di juróom-ñaari suuf di génn man man du ma seen morom man du ma seen morom waaye man lo waaw loo bëggu hmm? ah ok kon booy molaa boobu dafa génn booy booy booy booy booy molaa booy booy molaa dafa génn ah wax mu ne ah dafa génn ay audio mais baay ba dafa mën a dóor waaye baay ba dafa mën a dóor waaye dafa mën a fen ah génne na audio mais booy aji yow tam kenn ku la bàyyi booy ay booy aji la nga pël booy mais booy aji booy ñëwal Amérique booy ma jël la ñëwal Amérique ma jël la wan booy yàgg naa fi de yàgg naa fi de ma dëgër de affaire yi dafa wow de waay waay waay sama affaire yi dafa dafa congelé dafa yàgg booy man silib sax dama koy woon ma xam waaw waay aji aji man bëgg naa xencu sa xeetu silib de aji bëgg naa xencu sa man la mataara silibaar bëgg naa xencu sa xeetu silib de man silib dafa may daane yaa ngi fàttaliku Ellen Gueye yaa ngi dégg histoire boobu Ellen Gueye daf ma mus a dama mus a woo ma ma génne ko benn silib silib nan ko sama silib jabar di ko jéem a iri pour tëddoon ko ci camion yi xam nga man rek fa ci camion yi laay rendee dëkkuma fenn damay taxawaalu 40 ans yi ni Amérique mënu ma dem mënu ma dikk donc ci silib silib xeetu silib daf may daane surtout bu string bu string daf may ray bu silib daf may daane string daf may ray man la mataale Amérique ngay ñëw ñëwal gaawal gaawal gaawal bul xaar procès bul xaar procès chef de procès bul xaar procès laa wax na ci photo chef de bul xaar procès gaawal ñëw gaawal ñëw na na gaaw ñëwal Amérique je te man fii dama fi am gang dama fi am ay crips dama fi am ay bulls am naa ay reykatu nit am naa ay feskatu nit am naa ay dakkatu ko man Amérique maa ko man Amérique maa ko géré même crips bi chef des des crips man maay papaam man maa parce que papaam ak man slibar blouse yi fi lañ naan récolté di ngay gis noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo assassiné président yoo gis ñu assassiné sama gars yi ñoo leen assassiné blouse yi blouse man démb fi lañ naanee ndox fi lañ man man saa yu ñu ay nit bu ñëwee sama gaale la ñuy sama gaale man blouse yi maa leen chéré <laughs> waaw ma bul xaar procès ñëwul gaawul gaawul gaawul gaawul gaaw euh, bul fafaata say silib nag bul fafaat aji ah bul fafaata say silib ah non mais mais mais mais mais grand bu ma ne grand ma ne grand ba sama rom baay laa sama rom baay laa man la maxtaale silibaar ma buy aar bépp njagamaar cagabaar wax wuy ma eh, bu ma fontoo booy bu ajee xolal bu antoo ajee may bëgg a yab nag aji aji boo xolal man du ma sa grand man sa baay laa man ak sa baay ñoo àndandoo ñoo defandoo coladara ñoo foowandoo ñoo montandoo baas yi ñun ñoo defandoo soirée ñun ñoo bindandoo ay invitation ak ay soutien booy booy booy aji bu ma fontoo booy booy rakk bu ma fontoo booy booy fils bu ma fontoo ah, baal ma baal ma <laughs> Matar le célibat koy wax célibat tey dama koy wax célibat booy bi dafa réew kii ne ma mun naa ma Matar le célibat mais merde waaw kon man a ji je veux le prochain je veux le prochain je veux le prochain waaw waaye j'écoute une dernière man moo yi mu génn nii man kii yàlla dee moo laa yàlla dee sama fu ma demee ba am sama jàmm bu ma laqatoo mu génne ma bu ma nëbbatoo ci hôtel yi mu loqati ma bu ma joxee numéro mu loqati ko bu fu ma dugal mu loqati mu nëbb samay silib mu loqati ko mu nëbb samay couche mu loqati ko mu nëbb samay string mu loqati ko mu nëbb samay dàll mu loqati ko mu nëbbatu mu loqati ma ma mu nëbb samay numéro mu loqati ma ay waay kii loqati na ma waay ma dugal samay ojo mu loqati ko ah ma déglu rek te jooy te noppi te dem sama yoon gis ngeen fu mu nekk ni ça fi fii da ngeen di mën carte sur table. mënoo loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. jeex na. loo wax ma appuyé la foo def nag nag ma woo téléphone wax. parce que j'en ai jeex na léegi xam nga nu may def. Hmm. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul. man ma def conférence de muy neex muy naka léegi nag mën na leen dinaa oote confrance de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo lañu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne conséquence conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëggut yow nga wax moo tax ñu lay koy kon. su ma fëkkee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement amul benn problème yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko man. le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. dem fan ñëwaat fan ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. de naa la ko wax. tey on va jouer carte sur table si ñoom. yenn de naa la ko wax li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatambe do ay ñaan ñoom Fatambe xaw xawma ak ñeneen ñeneen ñi. ay tàmp fii je sais pas quoi waaw ñu lepp dox yow. pourquoi yow ya bi mais kanam la. Hein? sama kanam la. Hein? yow sama kanam. yow mi nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fan la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax tey yow kenn gënu la cee dëgg wala déet hmm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah ah. loolu loolu loolu loolu da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sang nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa oo paa bi su ma jullee ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok ok ça. waaw ay preuve la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo de pour pour jéem koo def. incha allah loolu laa loolu laa jëm di jéem a try ak su jullee ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok. ok ça. voilà. kon nag sama gars kon loolu la woon ah. dama koy. aji génn moom film la. <clears throat> moo tax sax ni ko nettalee dañ koy scénariser quoi dañ koy scénariser ba ngeen gis film bi parce que film il faut ñu def ko noo parce que ñoom dañoo film lañ monté ñu euh, ko tàmbalee ci ñëpp ñu dugg ci film bi amna ay figurant amna ñu ñu ñu film bi amna chef de bandi Mamour Diallo chef de bandi la Gabi chef de bandi chaga chaga chaga bandi bu jigen bi mom moy ñom jor Diagne donc affaire film la donc buñ ñu leen koy netali genre film la nga xamni day gaaw dugg ci sen subconscient donc voilà film la woon gis ngeen film bi aji geet bi moy aji geet

yéen a ngi seetaan Adji Gate li mooy épisode 3 et bientôt incha allah nañ leen indil Adji Gate épisode 4 incha allah one love kon à bientôt pour aji Gate épisode 4 ciao ciao one love